jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag dellusiwaat euh, tey ci plateau bi maanaam alargu bu jot ci waxtu wi 21h fu mu weesoo ay simili ndaw dañuy toog waxtaan ak yéen ci wàllum politique. li nga xam ne nag moom moo di maanaam lu lëmbee tey actualité politique bi moo jëm ci wàllum 94 milliards. maanaam presque boo xoolee ba ci biir téeméeri milliards yi nee nañ lu ci manqué bariwul tuuti la muy 94 milliards te mbir mi nag lu ko waral moom moo di ab titre foncier. bu jëm ci 141 wala boog 145 wala boog 1451 bu la neexee R mbiru titre foncier boobu nag gis nañ ne daal dafa impliqué ki nga xam ne moo fi nekkoon ay jamono directeur général de domaines mu di Mamour Diallo moom sax ñuy fàttali ne jotoon na porte plainte wala boog bëgg na ko sax nekk ci yoon bi euh, porte plainte ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. waaye gis nañu mbir mi nag comme yegg na ci wàllum yoon moo tax ñun tey ci waxtaan bi euh, du ñu dem ci maanaam yenn fond de dossier bi. mais nag daañu waxtaan politique parce que aussi bu ngeen xoolee euh, ñi ko sekk nag ay acteurs politiques lañu. ndax euh, Ousmane Sonko bu ngeen xoolee yàggul dara ci fan yi maanaam dimanche bi ñu weesu rek nee ki nga xam ne moo di Macky Sall da ko bëgg a liquider politiquement ba moo tax kon dinañ ci ñëw ci wàllum politique bi bu baax a baax waaye nag am ñenn ñu ne waaw mais lan moo war a mun a tax sax ba kii Macky Sall bu ko liquider politiquement parce que Macky Sall nee na nekkatul candidat à sa propre succession ndax euh, constitution mayetu ko mu def beneen mandat. waaw lu ci mun munti am yëpp dañ ko jéem a jàngat ci ci ci biir émission bi ba tey ci waxtaan bi am ay laaj yoo xam ne jot na cee juddu parce que nee nañu bu ñu xoolee maanaam su fekkee ne Macky Sall mënatul nekk lii di ab candidat ci 2024 euh, kon lan moo war a mun a tax mu mun a empêcher kii di Ousmane Sonko mu présenté wu ci 2024. ndax euh, bu ñu xoolee euh, Sonko ci présidentielle bi ñu génn moom moo jël ñetteel topp ci ginnaaw Idrissa Seck. ak Macky Sall mi nga xam ne moo jël raw gàddu gi am 58 virgule 56 pour cent Ousmane Sonko am 15 virgule 67 pour cent am ñu ne diggante boobu yaatu na lool. waaw diggante bu yaatu boobu naka la Ousmane Sonko mën a nekk ab menace euh, ci kii nga xam ne moom moo di Macky Sall ay laaj yu bëri yoo xam ne askan bi samp na ko laaj na ko bëgg nañ xam ana lan moo waral leaderu Pastef yëkkati euh, kaddu yooyu wala boog tubaab bi naan qu'est-ce qui se cache derrière toute cette affaire des 94 milliards de francs CFA assemblée nationale fas yéene amal ab plénière aljuma bii di ñëw dana ci wax commission des des lois xam nga dégg ngeen ko dana dévoiler li nga xam ne moom moo di euh, rapport am bi nga xam ne jot na koo amal ci wàllum mbir moomu jëm ci affaire 94 milliards yooyu ba tey assemblée nationale yi dana saytu d'abord mbàllum commission yi yokk ko jëlee ko ci fukk benn yóbbu ko ci fukk ak ñeent kon mbokku téléspectateurs yi euh, tey nag ma fas yéene ànd ak ci biir waxtaan wi ay kàngam ay kàngam ci wàllum politique ndax parti Ousmane parti Ousmane Sonko euh, teew na ci ndaje bi ki leen fi teewal nag moom moo di seen porte parole di maître Abdoulaye Tall di porte parole PASTEF ñu koy wax PASTEF les patriotes euh, maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi nga xam ni ñu ngi ñuy déglu du ñu seet seetaan tey maa ngi lay gërëm. jërëjëf jërëjëf maitre yow may fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi nag yaa yore kaddu euh, parti bi di Pastef les Patriotes te Ousmane Sonko jiite ko ba tey ci waxtaan bi daañu ànd ak ki nga moo di amadi Dieng amadi Dieng moom nag euh, ci APR la bokk Alliance pour la République waaye mooy coordonnateur quand même mouvement bi ñuy wax RAMP maanaam c'est la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence amadi nuyu naa la. Diaby euh, maa ngi lay sant di la gërëm di la féliciter ci yi def. di nuyu ñu àndal ci plateau bi di nuyu tous les tous les téléspectateurs de la 2 di wax ne je suis l'habitué des émissions de la 2STV en tout cas je suis très satisfait de votre travail. jërëjëf sur le plan administratif yow yaay directeur de la construction fële ci ministère de l'intérieur du noonu. voilà c'est vrai waaw kay ba tey ci waxtaan bi ñu fas yéene ànd ak Babacar Dione Babacar nuyu naa la. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> il faut que ñu gëstu li nekk ci ginnaaw mais merci quand même. di nuyu également monsieur Dieng nuyu mon ami Boubacar Ba. jërëjëf vraiment c'est un honneur aussi maître maître Tall maître Tall excusez-moi donc je crois que c'est un thème d'actualité waaw mm-hmm. parce que depuis quelque temps on li bëri na lool. li nekk si ginnaaw waaw. jërëjëf Babacar ci waxtaan bi Babacar euh, Babacar Ba jiite forum du justiciable moom tamit teew na daañu dimbale jàngat jàppale ñu ci maanaam yenn aspects yu bëri naka lañ ko war a mën a jàngatee Babacar nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Cheikh euh, di rafetlu invitation bi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di nuyu également téléspectateur de 2 yi nga xam ne tey ñoo ngi seetaan ah di ñaan rek lépp loo xam ne wax nañ ko fii mu nekk njëriñu askan bi. jërëjëf Babacar alors kon nag euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk ngir permettre suñu mbokku téléspectateurs yi ñu gën xam ana lan la ñu war a mën a waxtaanee tey mu jëm ci wàllum 94 milliards dañuy déglu. élément bi nga xam ne Kajoor Cissé defal nañu ko ba pare ñu del dellusiwaat ci plateau bi dugg ci waxtaan bi. Ousmane Sonko nag jamono ji daanaka moom mooy def actualité ginnaaw moom Ousmane sonk ba mu sampee boobule coow ci képparu politique bi dafa mel ni boobule coow mi ngi koy bëgg a topp ndax ñi nga xam ne ñooy député yi ñoo ngi waajal ab session ci enquête bi ñeel yooyu les 94 milliards naka noonu mu am ñenn itam ñu fare ci kujje gi ñuy rumandaat ab loi boo xamante ne bii dafay tere képp koo xamante ni ki dañu ko ràjjee ci fonction publique bi ngir mu mën a samp ndëndam ci lu mu mën a doon ci réew mi jug def ab sortie di xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi dañu koy bëgg a faagaagal dal di yàq li nga xam ne moom mooy casier judiciaire am su ko defee dootul bokk ci benn élection ci loolu nag la ay avocat moom Ousmane Sonko fas yéene woon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi ni ki démb loolee nag mujjul ànd ndax ordre des avocats moom moo leen gàntal ñu dal di dig daje nag journaliste yi si jëmmi jamono ngir yi yàbbi ci loolee moom na bi rawatina nag fan yi nga xam ne ci la ñu ne. jërëjëf Kajoor ci jëmmi jamono jooju am na ku leen fi teewal mu di euh, maître Abdoulaye Tall muy porte parole parti bi danañ wax est-ce que Ousmane Sonko dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi alxamis bi ñu jëm wala déet c'est confirmé wala déet. c'est confirmé. dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi. incha allah wax ci mbir mi daal. waaw dina ci wax. dana ci wax daal dina ci àddu. dana ci àddu. wax d' accord jox leen rendez-vous demain à 15h. xam naa bëggoo dévoiler contenu bi moo tax. <laughs> donc duñ duñ la ci duñ la ci duñ la ci topp lool waaye dina benn laaj bu ma la laaj. Mhm. parce que ëllëg na fu mu toll nii askan bi ndax nee nañu euh, Ousmane Sonko dégg nañ ko sax ci week bi bi passé euh, gannaaw bu mu nekkee ci banlieue bi mu yëkkati ay kaddu ndax nee na kii di mag Sall da ko bëgg a liquider politiquement nu mu demee noonu pourquoi mu bëgg a liquider comment ça. waaw Cheikh maa ngi lay maa ngi lay remercier bu baax question bi nga laaj am na solo. mais dafa mel ni tey la coow li ëpp moo tax nit ñi xaw a fàtte mais liquidation ou tentative de liquidation de Ousmane Sonko tàmbali na depuis des années. Mhm. su ma fàttali ko Ousmane Sonko ba ba muy nekk inspecteur des impôts la commencé woon xeex bi xeex na dem na ba si biir raje ko. la radiation c'est une liquidation quelqu'un qui travaille nga radier ko tu l'as liquidé de façon professionnelle parce qu'il perd son emploi il retourne retourne à la case départ il devient chômeur donc c'est une première étape d'une liquidation ba mu fi jógee ay jamono mu commencé di def politique wane bu baax fësal engagement am mais yeneen i jamono li nga Ousmane Sonko bind na fi benn livre tuddee ko livre vision depuis livre ba ba mu génnee c'est la deuxième étape de la liquidation démarré wat booy xool ba livre bi génnee mu tuddee ko vision tuddee ko solution muy sa vision programmatique parce que programme bi après génn na lors de la campagne électorale mais ba livre bi génnee ñun ñëpp kenn fàttewu ko gis nañu y avait une campagne de jabolisation et de déstabilisation de monsieur Ousmane Sonko lu ne waxal nañ ko fi tam nañ ko fi lu nekk pour rafetal kàddu gi rek dugg nañ sax ci vie privée tam nañ ko fi sàcc tam nañ ko fi salafiste dem nañ sax ba ni Yaya Jammeh moo nekk derrière moom Daesh moo nekk derrière moom ndeysaan maa ngi fàttaliku sunu sœur Mariama Samba Mariama Sagna bañ ko defee jëf yu ñaaw jooju ba bu ñàkk si bakkanam dégg ngeen fi benn autorité politico-religieuse bu taxaw ne c'est c'est un acte de Daesh yooyu yëpp fi la nekk ma jàpp ne loolu tamit bu nekkul liquidation lan mooy nekk liquidation léegi nag ñu ngi ci acte trois de la liquidation. c'est-à-dire. acte trois de la liquidation mooy xam nga Ousmane Sonko dañoo génne si ay élections présidentielles mu wane boppam sénégalais yi wane seen bopp parce que su ma nee wane boppam sax c'est trop dur dafa mel dama xeeb sénégalais yi nga xam ne ñoo porté leur choix sur Ousmane Sonko mais sénégalais yi wane seen bopp surtout jeunesse bi. wan ne que ne am nañ candidat am nañ espoir ci nit wane seen bopp te résultat yi am na lu ñu jàngal ñu bëri dañuy yaakaar ni 15 pour cent ou pour cent du dara mais boo xoolee en terme de score man Sonko il a presque eu 700 000 suffrages 690 000 yi teg na lu sori et se retrouve avec un score de 15 un pourcentage de quinze virgule 6 pour cent may fàttali ni en 2012 Macky Sall avait fait presque le même score pour avoir eu mille 000 électeurs 708 000 suffrages et s'est retrouvé avec vingt 26 virgule nangam pour cent yóbbu ko deuxième tour kon tey jii bu ñu jëlee score score Ousmane Sonko mu nekkoon 2012 kon moom mooy dem deuxième tour. waaw li ñu jaaxal boo xoolee tey ñu ngi ci 2019. waaw Ousmane Sonko avec ses 15 virgule 6 pour cent Macky Sall il y a 58 virgule quelque chose pour cent alors que Macky Sall présenté wul encore pour un nouveau mandat kon lan moo war a mën a doon problème tey mu war ko liquider. politiquement xam nga xam lan mooy danger bi. xam nga peut-être question boobu peut-être Macky Sall moo xam li muy gént. <laughs> moo xam. li na ci biiram ci kanam. <laughs> wala nga firul ñu ko peut-être waaye dafa <laughs> dafa wane ay actes. yoo xam te ni may nañu ñu jàngat ko. Hmm. acte bu njëkk pour la première fois au Sénégal un leader de parti politique de surcroît député à l'Assemblée nationale am un vécu dans l'administration maanaam nekk na ci position boo xam te nii dina mën a décortiquer certains messages et certains certains événements joxe ci une interprétation joxe ci une lecture partagé ko nag ak ñi ko war a partagé la te ku xam Ousmane Sonko waat ak sa axulaay taala di nga xam ni nombre d'années bi mu def si administration bi ak façon bi mu yore woon liñ ko liñ ko joxoon ci liggéey def na ko si anam yi mu gën a setee ak yi mu gën a muccee ayib ba mu jógee ci loolu rappali nga ko léegi dem na élection mais avant ñuy dem élection moom posé na un débat may rappeler sénégalais yi ne c'était pas la première fois Ousmane Sonko di poser un débat parce que depuis que mu dugg assemblée nationale seetlu nañ ni en tout cas il fait partie des rares députés s'il n'est pas le seul il fait partie des rares députés yi nga xam ni débat yi amoon biir assemblée nationale jóge na fa fexe na ba jóge fa maanaam ay xeexu robinet mbedd booy xool amatu fa ay dóorante diw dóor na diw seen yooyu ñu daan jàngal bañ nekkee xale ñu daan diw moo fi dóoroon diw mooy xool wàññeeku na bu fekkee ba tey gis nañ fi ay anam yu gën a ñaaw yooyu mu fi am tamit mais gis nañ ni. pour daane nekk na quelqu'un boo xam day poser un débat d'idées mm-hmm. sur l'économie sur les ressources naturelles sur la transparence sur la bonne gouvernance c'est may wax ni. waaw li mu njëkk a dénoncé ba mu nekkee député juste après son entrée à l'Assemblée nationale la ko dénoncé parce que dafa am preuve à l'appui mooy l'absence de paiement des impôts par les mu dénoncé ko ba mu dénoncé kenn weddiwul ne wax kenn waxul ne li mu wax du dëgg ministre de l'économie et des finances jënd na wax ne effectivement assemblée nationale yorel na bor administration bi ci loo xam te ne ay impôts yu ñu war a fay. ñu koy fàttali ça avait fait un tollé quand même. à l'époque a fait un tollé. bien sûr ñu ba mu soulever yéen wax na si accord de partenariat économique yi ni mu nar a rey suñu économie loolu sax débat bi ko fi jiitu la mais ñëwaat ni ba na si ak ay ay organisation de la société civile pour réactiver waat sa débat mettre ko au goût du jour pour sénégalais yi gën a mën a defaru gën cee mën a fagandu ko. wax na it ci li nga moo di franc CFA bi suppression. wax na ci franc CFA bi mais dama bëggoon quand même pour distribuer parole bi jox ñëw wax si milliards yi. may fàttali ni sànq wax nga ko léegi. waaw. man dossier bi nga xam ne dafa pendant devant la justice par respect à mon serment d'avocat par respect au secret de l'instruction du ma bëgg di si sori mais nañ fàttali ko moom Ousmane Sonko moo njëkk def dénonciation xam nga maa ngi dégg débat bi di bari naan il n'avait pas porté plainte il a fait une dénonciation tey jii Cheikh Diaby jóge nga sa kër di ñëw di gont si di liggéey boo génnee sa buntu kër gis ne am na ñuy def jéyee ci koñ bi am na ñuy def jéyee ci quartier bi yoon may na la même nga garder anonymat waxuma sax nga feeñal sa bopp de pour de raisons de sécurité yow nga garde sa anonymat nga dem ba police wala gendarmerie wala nga oote procureur nekkat maa ngi dénoncer mbir mi nga xam ni gis jàng naa ko ne am na fi léegi wala mu ngi bëgg am wala ñi ko def ñu ngi nii di ko def wala ñu ngi nii di daw loolu moo dénonciation Mm-hmm. une dénonciation nag peut-être même anonyme mais Ousmane Sonko ba muy dénoncé mm-hmm. defu ko de façon cachée dafa wane boppam dénoncé ba mu dénoncé gis nañ ni fi mu joytu woon yëpp dara yëngatu fa à part of nag bi nga xam ni déglu woon na ko te ba mu ko dégloo ba tey gisatuñ benn suite mais loolu noonu dafa amoon ñu mu doon déranger te li mu wax dafa mel ni le temps lui a donné raison parce que kenn si ñamu cité tey jii nekkatul place ba mu nekkoon et pourtant am na ñeneen ñoo xam te nii tey jii nekkoon ngànk si nguur gi ñu cité leen si ay scandale ba élection yi passé dañoo continuer di garder seen place. d' accord dinaa ñëwaat yow ci kanam tuuti ñooñu ay IGE. maa ngi ñëwaat yow ci kanam ay rapport of nag nga leen épinglé. d' accord d' accord ci yow ci kanam tuuti lay jox kaddu gi yow ci mouvance présidentielle nga bokk ci APR nekk coordonnateur ramp alors. aujourd'hui dégg ngeen Ousmane Sonko kaddu yi mu yëkkati nee na vraiment vous cherchez à le liquider quand même politiquement yow lan ngay tontu ci accusation yi d'abord. Euh, voilà merci Diaby je pense que lu may njëkk wax d'abord c'est que vous êtes dans vos missions et dans vos rôles vous les journalistes et la presse de façon générale je pense que le fait Sonko et le fait des milliards en rien il a de nouveauté c'est-à-dire que vous savez j'ai l'habitude de dire que Sonko n'est pas un politique c'est un activiste. ñu wax ko ci wolof. c'est-à-dire Sonko deful politique. lu muy def. day dénoncer rek activiste la tubaab dafay tudd activiste la. et il a dit dans son ci intervention wax na ko Sonko dénoncé na lii Sonko dénoncé na lii Sonko dénoncé un politique dafa am démarche am logique am stratégie et tactique pour que les problèmes yoo xam ne pa yoo xam ne moo moo moo la jàkkaarloo. trouver des solutions mais mooy day wax comme tous les activistes à travers le monde. mais Sonko nekk na quand même politicien yoo ne fii boo au Sénégal yu poser le débat poser le débat ah, sur l'économie sur le débat sur la corruption la transparence tout le débat n'est la démarche. mais à chaque fois bu génne gis nañu. non non l'impression que ça tremble un peu du côté du pouvoir. voilà Sonko a des sa méthode. Hmm. c'est-à-dire qu'il faut il faut rechercher dans la méthode d'abord. dans il sonde des domaines, il recule ou bien il, il tombe tomber. il a fusé ici tous nos anciens présidents. wax ci wolof dana neex. non c'est-à-dire que ma ne la. su dee moom tey. Ah. président sénégalais yu jaar fii. Hmm. fekk dee nañu bu yàgg. Hmm? il a dit après quand on l'a attaqué ñu daanu ci kawam mu commencé di ni di di expliquer pourquoi il a dit c'est de l'activisme. il a parlé de tous les problèmes à la fois parce que dafa bëggoon centraliser xalaat ak gis-gis nit ci moom. bien sûr il avait un projet politique mais je pense ce qui est important. mooy lan. qui est essentiel c'est que ce pays-là a des lois et des institutions. réew mi am na yoon am na ay institutions. kuréel yu nga xam ne sénégalais yi lañ ko ñoo ko teg et kuréel yooyu dañ jàppale Sénégal pour saytu lu dul dëgg ak dëgg dëgg naa lu bari ñu bari di wax ne Sonko porté na plainte. Sonko mënul porter plainte heureusement il l'a dit. Hmm. Sonko lu mu def mooy dénoncer. mooy dénoncer tout à l'heure c'est ce que tu as dit. je t'ai laissé parler tout ton temps. faut pas m'accuser également. tout je t'ai laissé parler tout ton temps. je réponds à ce tu as dit. tu es libre après de poser le problème autrement. mais ce tu as dit lu nga wax dafa leer nañ. parce que tous les documents lu ngeen def ci problème 94 milliards milliards bi lu si gën a fës da ngeen ne porté ngeen plainte. Euh, euh, vous, vous, vous jusqu'à présent la justice ne se ne se pas ne s'est pas autosaisie justice bi waxul dara taxul ci problème bi aujourd'hui alhamdulilahi rabbil alamin hmm. assemblée nationale institution moo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom te sénégalais ñoo fa nekk ñu fa nekk aussi sénégalais ñoo ko ñoo leen fal saisir dossier bi et automatiquement conséquence bi lan la mooy disposition ou disposition ou action justice day suspendre ba parlementaires yi pare seen enquête première question lu tax Sonko moom ci boppam. ci commission boobu taxawe di enquête lu tax ñu yuyul commission bi première te moo tax problème boobu posé wu moo tax euh, suñu assemblée générale autosaisir donc jël problème bi ne ko teg a teg commission d' enquête moom mu nekk le premier presque le premier concerné parce que dafa dafa dafa dafa dafa dafa accusé et dans son accusation ils veulent que les autres dafa bëgg ñeneen ñi indi justification de ces accusations Donc la commission d'enquête a fait son travail. D'ailleurs même, certains, euh, je disais, polémistes. waaw boo xam ne dañuy wax ci loolu ou bien ils ils sont ils des des critiques ñu ne assemblée générale assemblée nationale a quelque part sorti de ses prérogatives. je suis la commission dañu daan la commission parce que ils ont commencé nañ di ci wax alors que de, rapport bi. Euh, tegu ñu ko ci table assemblée nationale ci plénière je pense que ça c'est juste et c'est bien que des esprits euh, euh, euh, alertent par rapport à certaines situations qui sont ñu xam ne du du mais aujourd'hui l'Assemblée nationale appelle à mettre à la disposition d'une plénière de tous les députés le rapport et le sieur l'activiste l'infant celui qui est moo xam ne lu gën a activité boo xam ne boo xam ne politique c'est un infantilisme c'est de l'infantilisme ce qu'ils font c'est-à-dire que leur problème leur problème essentiel ils veulent dugg ci arène politique bi mais ils ne savent pas par quelle porte passer les soixante-quinze pour cent ou les seize pour cent de de de de qu'ils ont eu aux élections mais parce que ils ont passé tout leur temps à tromper le Sénégal et les Sénégalais ils ont fait croire à des aujourd'hui aujourd'hui yéen ñu leen wooteel nag nan lañ ko mën a qualifier lan yéen ñu leen wooteel naka lañ ko mën a qualifier bu fekkee ñoom ils ont trompé les Sénégalais nous on a un bilan et un parcours on a un bilan et un parcours c'est un bilan qu'on a présenté. mais ñoom aussi ñu leen jàpp ñu leen wooteel c'est pas parce qu'ils ont été convaincus par seen programme. j'ai pas vu le programme de de Sonko en dehors de. lii loolu lii système il y a aucun contenu concret c'est-à-dire que là dans le document de la du vision bi. waaw c'est-à-dire que euh, euh, Sonko parle plus de lui que de son programme parle plus de lui que de son programme. Et si j'ai l'occasion, je vais le démontrer. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, voilà. c'est que Sonko, je pense, si je ne me trompe pas, fait plus de 15 ans dans l'administration. Sonko prétend qu'il est un spécialiste la fiscalité. Pendant tous ces 15 ans, je n'ai jamais entendu Sonko spécialiste de la fiscalité. Moi, juste, j'ai vu, j'ai accompagné Senghor, j'ai accompagné Abdou Diouf, j'ai accompagné commencé la politique en 1973. J'ai vu tout le monde passer. Donc Sonko, non seulement il s'érige en spécialiste, mais tout le monde sait que Sonko a animé le syndicat euh, dans, le, dans, dans, le secteur où il, il exerçait et il en a fait fondamentalement il a il a instrumentalisé syndicat pour ses intérêts personnels. mais monsieur Dieng am na aussi benn aspect boo xamante nit ñu ngi leen ko reprocher parce que nee nañu bu ñu xoolee par exemple si ce sont des personnes yoo xam dañu jege nguur bu ñu leen toppee wala ñu ne bon ñu leen di accuser de détournement wala wala luubal nañu xaalis automatiquement non non xaar xaar ma damay daane damay daane ma bàyyi la nga daane dama lay ah bàyyi nga daane dama lay bàyyi nga daane bàyyi ma poser sama question dama ne euh, vous accusez wala doog dañ ne Sonko bu ngeen xoolee ba ci biir Euh, à chaque fois par exemple euh, on, on a l'impression que euh, ñi nga xam ne yéen jegewuñu leen voilà pour revenir sur ma question ñi nga xam ne yéen jegewuñu leen automatiquement dès qu'on parle de l'argent wala toppee na dara automatiquement dañ leen di woo mais ñu leen jege parce que y des gens am ne jege na leen on topp mooy affaire product dégg nga coow li fii n'est-ce pas dégg nga yeneen coow yoo xam bëri mais à chaque fois bon gis kenn du wax dara ci affaire xam nga les amalgames sont faciles dire que parler de Prodac parler du coude mais le ministre qui avait la charge pro Prodac pro, pro, boobu mais il est, il a démissionné il a demandé quiconque amène les preuves que am na rapport sur lui qu'il qui dénonce qu'il a fait ceci ou bien il a fait cela il était disponible qu'est-ce qui a été fait les accusateurs ñoo xam ne dañ ko doon teg loolu fañu ne fan la ñu nekkoon et je reste là je pense que wax lu la neex d'ailleurs c'est la même chose qu'aujourd'hui Sonko jóg accuser quelqu'un un citoyen parce que avant d'abord ngeen xool que avant d'abord ngeen xool non la plainte elle a été suspendue mhm. parce que y avait le dossier il était en cours au niveau de l'Assemblée nationale mais un citoyen nga tooñ nga nga nga jóg ne ko def na lii def na lii def ni et tu n'amènes tu n'amènes aucune preuve d'accord aucune preuve je pense que ça c'est extrêmement non <laughs> parce que mon temps je le je le colle sur celui-là parce que il paraît que c'est lui mon débat <laughs> alors voilà ce que je veux dire uh-huh. en dehors de cela de cette de cette de cette fougue de cette euh, cet esprit de de de de d'activiste que a l'autre là où il veut piéger les Sénégalais ça c'est le plus important à chaque fois qu'on veut montrer que lu mu wax du dëgg qu'il est plutôt dans la dans, dans l'invention des choses qui ne sont pas réelles il se victimise et ça c'est très grave aujourd'hui l'Assemblée nationale c'est un membre de l'Assemblée nationale wow. on l'a appelé lors de la commission ñëwul mhm. aujourd'hui Assemblée nationale bi mu ngi plénière il est en de dire qu'on est liquider c'est grave ça c'est de l'infantilisme d'accord c'est pas politique d'accord assume ses responsabilités uh-huh. qu'il va au niveau de la plénière parce que l'Assemblée nationale mënul mënul mënu ko mënu ko mënu ko euh, daanal. jërëjëf Amady rafetlu nañ say maa ngi ñëwaat ak yow parce que c'est le premier tour de table Babacar. oui cher lan mooy nëbbu ci affaire 94 milliards. qu'est-ce qui se parce que coow li bëri tey. waaw merci je me rappelle euh, milliards yi fii fii ko njëkk a waxee ba mu am coow. dëgg la maanaam 30 31 décembre. 2018 euh, bi passé voilà bi passé ci la ñu invité woon fii Ousmane Sonko mu waxoon ko ba der lu bëri sax ñu ko si songaat mooy Euh, bi muy hésiter un peu par rapport tour tour turu société am euh, loolu je crois que tax na may may fit ñi nga xam ni ñoo koy attaque daan ne kuy hésiter si turu société am yooyu vraiment da gis sax ba léegi argument yi ñuy utiliser loolu bokk na si. dëgg mais je crois que loo ci mën a dégg euh, sur le fond parce que dafa bëri amalgame comme ni mu ko waxee. amalgame bi man li ma gisee mooy que ni j'ai l'impression que depuis quelque temps amalgame bi APR ak Benno Bokk Yaakaar dañ ko entretenir parce que aujourd'hui bu fekkee dañ ko yóbbu assemblée. maanaam assemblée député yi coow la te bu ñuy waxante dëgg rek assemblée nationale moom muy commission d' enquête parlementaire ou pas mën nañu see am yaakaar trop. vraiment pour dire vrai parce que tout simplement c' est des acteurs politiques avant avant tout. bu fekkee Sonko dafa dafa yóbbu muy dénonciation muy plante mu njëkk ko def au niveau du du procureur maanaam li am si ginnaaw pour nit ñi comprendre ko mais justice bi na kii liggéeyam na def liggéeyam là-bas mën nañu njort ni. c'est des acteurs judiciaires yu bokkul benn parti wala nekkuñu fenn ñoom ñooy traité dossier bi au moins mën nañ ci am njort bu rafet mais aujourd'hui ce sont les mêmes acteurs de la commission yi nga xam ni je crois que Boubacar ñu jox article bi mm. loolu parce que bu fekkee ñoom dañoo def commission d'enquête parlementaire ñu wax leen carrément dans le règlement intérieur de l'Assemblée que bala ñuy def conférence de presse bala ñuy annoncer dañu war a dem en plénière ba pare defuñu loolu parce que bi ñu génnee def conférence de presse jot nañu wax ni Mamour Diallo deful dara. ils l'ont dit. Ils donc loolu je crois que il y a même euh, bu fekk euh, toute l'intégralité du rapport il y une partie du rapport qui a été donc ébruitée wax nañ ko pour sénégalais xam loolu war ñu ko woon def je crois que dafa am benn campagne de médiatisation bu ci am. c'est vrai normal par rapport ak parcours bi mu wax ci Sonko normal Sonko dafa nekk Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ni dafa sonal nguur gi il faut que ñu loolu. parce que quand même je crois que 15 euh, pour cent yi mu wax 700 000 voix yooyu boo gisee peut-être euh, pour plus de précision demul deuxième tour comme président Macky xam nga boo xoolee fichier bi dañ ko bindaat dañ ko tëggaat. mu am beaucoup plus nag de votants et d' mhm. yoo xam ne dañoo am si euh, si élection yi ñu génn 2019 yoo xam ne amuñu ko woon 2012. moo tax 700000 voix yooyu mën na yóbbu Macky Sall deuxième tour te mënul yóbbu Ousmane Sonko deuxième tour. Mhm. loolu c' juste une précision mais li ma bëgg wax mooy Ousmane Sonko bu fekkee yóbbu na mbir bi justice euh, maanaam assemblée nationale procureur mënul wax je crois que loolu euh, du ma spécialiste ah des lois mais procureur mënul wax ni assemblée nationale commencé na damay tënk li ba waroon def déedéet ça n'a aucun sens. même bu fekkee dénonciation la sax. même bu fekkee du plainte dénonciation la avec des faits graves yoo xam ne moom gis na ko 94 milliards dans un pays di di pauvre maanaam procureur bi warul woon a mën a xaar dara assemblée bi moom dafa waroon a poursuivre loolu. ba xaar ba ñu réglé ko mais ñoom dañoo tenir quand même bal bal bi au rebond léegi ils en ont fait une affaire politique une affaire politique parce que Ousmane Sonko it durant son parcours mooy li ñuy wax dafa leen a sonal ci dénonciation yu bëri yoo xam ni sonal na ñoom it ñu jox ko peut-être lu bëri bës bu am parce que heure bu su Ousmane Sonko masee sëqat rek yëkkati gis nga ñoom ñëpp ñu jógandoo tontondoo ko maanaam def ko benn cible boo xam ni heure bi mën nañoo wax ni en grande partie succès bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko sur la scène politique waa APR wala ñi ànd ak président Macky Sall ñoo ko ko jox. yow jàpp nga Ousmane Sonko menace la ci nguur gi fi nekk. mais parce que mais mais mais bien sûr Cheikh. parce que li mu mën a nekkee menace du question sax suffrage waxuma ko mais dafa am quand ñu ànd ak moom te ñu si bëri boo xoolee li ñu seetlu ay jeunes la. bien que génne gu ñu étude boo xam ni de manière exhaustive wax nañu moyenne d'âge bi voté Ousmane Sonko donc bu fekkee jeunes yooyu dañoo ànd ak am nañu yaakaar ni jeune moom fu mu ànd ak maanaam avenir la boo xoolee Ablaye bi jeunes yi ànd ak moom en 88 93 di voté Abdou Diouf naan ko ñii amaguñu âge voté amuñu sax carte carte d'électeur mais dañoo wax ni jeunes yooyu ñoo dem ba màgg ba 2000 daal di koy votel ah daal di ànd ak moom donc je crois que loolu mën nañu ko yaakaar si Ousmane Sonko bu fekkee en tout cas progression bi yàkk na mais maintenant euh, Ousmane Sonko aussi li muy def il y des des trucs des des avantages et des inconvénients. parce que boo xoolee aujourd'hui bu ñuy jàngat bu ñuy jàngat maanaam Ousmane Sonko dafa sonaloon pouvoir bi mais j'ai l'impression en écoutant gaawu euh, Pastef yi wax gaaw Ousmane Sonko yi j'ai l'impression que peur bi actuellement changé na de camp la peur a changé de camp pourquoi parce que euh, moom daf leen acculé woon mooy wax naa ko ñu koy fu mu waxee rek gars yi jóg tëb mais ñoom aussi ils ont compris que ils ne peuvent pas continuer en étant au pouvoir toujours rek réagir parce que Ousmane Sonko moo doon wax ñoom ñuy réagir muy wax muy réagir mais aujourd'hui j'ai l'impression quand bi ma déggee Ousmane Sonko wax ñu am ragal tiit njaqare si euh, règlement intérieur bi nga xam ne war nañ ko voté vendredi d'autant plus que règlement intérieur fu ñu ko mas a rek assemblée am na lu nekk si ginnaaw mhm. bi ñuy fàttaliku je crois mu mujj bi may waxee ak sama benn xaritu parlementaire mooy que ni ça fait presque cinq ans mooy bi nga xam ni euh, euh, je veux dire Macky Sall bëggoon nañ ko kii wala peut-être bi ñu ko dellawaatee Moustapha Niass un an yi mu amoon au niveau présidence assemblée nga xam ni Macky Sall taxoon ñu def ko ñu bëgg dellowaat dellawaat cinq ans yi moo taxoon ñu changer règlement intérieur maanaam toujours day am benn visée politique si ginnaaw moo tax ma ni bu euh, maintenant bu assemblée jógee daal ne dañuy voté Ousmane Sonko ragal ni dañ ciy profité peut-être pour empêcher ko d'être candidat en 2024 léegi Ousmane Sonko nekkatul si posture bi mu nekk posture bi mu nekkoon di di dénoncer di attaquer mais léegi nag dafa nekk dans une posture défensive te loolu euh, succès li ko joxoon succès mooy toujours mu nekk dans un euh, dans une posture boo xam ne day attaquer ñële di tontu léegi nag j'ai l'impression que les choses ni muy demee nii peut-être que ce qui est regrettable euh, waa APR wala majorité bi ñu ngi utiliser benn institution de la République pour peut-être xeex un adversaire politique loolu la ñuy quitter par rapport ak posture bi Ousmane Sonko am mais sur les faits booy booy analyser sur la forme politique ak communication bi ci am tu sens que gaaw Ousmane Sonko léegi ils sont dans une posture défensive alors que tout au long Euh, du parcours politique de Ousmane Sonko dafa nekkoon dans une posture agressive mais mais Babacar ma taxaw te yow tuuti parce que aussi am na ay bon il faut que aussi qu'on fasse un peu attention de l'effet boomerang quand je dis effet boomerang je remonte un peu l'histoire boo xoolee kii nga xam ne moo di Djibo Leyti Ka Foy Djibo Ka. paix à son âme bu muy soog génn parti gis nañ amoon na quand benn effet bu am solo bu mu amoon. ba mu dem am législative looloo ko may chance ba sax par la suite mu mujj nekk président de la République aujourd'hui est-ce que Ousmane Sonko maanaam te nga xam ne sori nañ li nga xamante moo di la présidentielle euh, peut-être certes il va il va dina demaat xëy na ci élection législative wala nekk maire Ziguinchor on ne sait pas parce qu'il est très fort daañ jàngat loolu yëpp ci kanam mais est-ce a des chances réellement d'être aussi fort durant tout ce temps maintenir non tu as parfaitement raison je crois nee naa Ousmane Sonko nekk parce que ñëpp xam nañ ko victimisation bi euh, muy Feu Djibo Ka ñoom ñëpp jaar nañ ci ba ci président Macky Sall bi nekk aujourd'hui à la tête du pays victimisation boobu la profito pour mën a nekk à la tête du pays mm-hmm. Ousmane Sonko aussi travaille mais mm. est-ce que également victimisation bi waa APR di continuer avec assemblée une institution je crois qu'on a presque mobilisé contre lui bu fekkee génn na si lii mais est-ce que aussi du ko joxaat toujours cette de victime bi nga xam ne moom la bëgg am devant euh, le le kii pouvoir. il sa mission selon vous yow sa gis-gis yaakaar nga ni mu ngi réussir lu mu non li ma wax mooy que ni hmm. am na changement de cap. depuis quelque temps parce que du point de vue stratégie communication bi ñu gis si son Sonko léegi waa waa majorité bi ñoo am ñoo am euh, ñoo am daanaka doole si moom. parce que léegi mi ngi euh, waxuma du ma wax yuuxu mais mi ngi wax ni maanaam dañ ko bëgg dañ ko bëgg a écarter. Mm-hmm. loolu aussi mën na nekk euh, juste ah, pour te mën na nekk benn benn benn buzz boo xam ni par rapport à ce qui s'est passé xam nga Khalifa Sall génn na. c'est am na coow. Ah, euh, nit ñaa ngi koy wax. Karim wàdd nit ñaa ngi njortu di peut dina ñëw avec jubóo retrouvaille Ablaye wàdd ak ak ak ak Macky Sall mais nécessairement du point de vue stratégique politique stratégie politique. Euh, <laughs> mais Ousmane Sonko peut se dire que il faut que ma ma engouffrer si benn brèche pour man tamit ma mën a def actualité d'ailleurs boo seetloo depuis quelque temps Euh, règlement intérieur bi parce que il faut que ñu xaar vendredi pour xam réellement lan moo laqatu ci ginnaaw bu fekkee li Ousmane Sonko wax pour liquidation la ou pas mais loo ci mën a dégg léegi ñëwaat na au devant de la scène euh, Khalifa Sall waxatuñu ay mbiram. Karim Wade fàttali ah, a moins euh, hmm. ni loolu la mais posture bi changé na parce que posture d'attaque bi mu amoon léegi posture défensive la Ousmane Sonko am. d'accord alors Babacar Ba yaa jiite forum du justiciable man sama première question naka nga jàngatee mbir mi d'abord. waaw euh, encore une fois de plus Cheikh merci ci invitation bi. mais may leeral rek si njalbeen que ni tey dama fi toog comme ku bokk ci société civile. parce que forum du justiciable également bu ñu koy wax. Euh, organisation de défense des droits de l'homme la mu nekk ci société civile. Bien sûr. donc on est ni de la mouvance présidentielle. donc loolu je pense que nii euh, dafay baax aussi ñu di ko ñu di ko leeral euh, mu nekk aussi benn rôle boo xam ne dañ ko assumer donc ñu assumer ko ak ak fierté donte nag bon lu ne dinañ ko dégg mais xam nga Sénégal moom mooy li may faral di wax rek parfois di nga di nga nekk ci ay principe di ko défendre xëy na principe yooyu boo koy défendre ñi lay critiquer tey bu subaa ñoom ñoo lay euh, applaudir ñi lay tàccu tey bu subaa ñoom ñoo lay critiquer moo tax ñu le plus souvent boo xoolee on reste sur les principes alors mbirum 94 milliards yi Cheikh ñun dafa am ñaari mbir yoo xam ni euh, daf ñu ci soxal ñaari principes mhm. bi njëkk mooy la lutte contre la corruption beneen principe bi mooy naka la ñuy def ba les fondamentaux qui sous-tendent notre état de droit mu mun a dëgër ci principe yooyu ci fondamentaux yi dama ciy dugal li ñuy wax euh, la moralisation de la vie politique bi njëkk bi on est tout à fait d'accord détournement ak fu mu mënti jógee loolu mënuñu ko cautionner parce que il s'agit de nos deniers publics. et je pense que loolu euh, ñoo ngi ciy bay suñu waar. mais beneen aspect bi gën a am solo Cheikh. Hmm. xam nga damay faral di souvent que ni dañu nekk ci état de droit te bu ñu nekkee ci état de droit waruñu ragal en tout cas di critiquer wala boog waruñu ragal même nit bu nekkee ci opposition laa wax de. nga gis que ni peut-être moo ngi def ay actes yoo xam ni wala teg na ay jéego yoo xam ni jaaduwul pour man li gën a li gën a jaadu li gën a yenu maanaam mooy nga interpellé ko. gis nga affaire 94 milliards yi bi son Sonko demee saisir ki nga xam te moom mooy le procureur mais ñun on a applaudi ñuy voilà maintenant mbir mi Cheikh nañ ko leeral ñu xam fa la mbir mi féete parce que il s'agit dañoo dañee public. mais ñun après quelque temps bu ñu toogee dégg nii. en réalité Ousmane Sonko il est impliqué dans cette affaire mais là Cheikh ñun on s'est posé des questions et ça je pense que c'est des interrogations tout à fait légitimes parce que aussi ñun lu ñu ay politique ñun askan bi lañ fi nekkal askan bi il faudrait que ñun également ci chaque point ci bépp fait bu fi mënti am ñu interpeller leen leeral leen ci mbir mi alors bi ñu toogee dégg ni Ousmane Sonko. dafa impliqué wu ci mbirum 94 milliards yi ñun on s'est posé des questions ñu ne non loolu nan la mën a nekkee Ousmane Sonko naka la mën a génn dénoncer wax lii y a détournement et tout ñun ñu bëgg ñu gëmloo que ni Ousmane Sonko il est impliqué dans cette affaire alors ci lañ def ay petites recherches di xool di saytu ñu tombé sur ay convention ay protocole yoo xam ni dañu gis que ni Ousmane Sonko par le biais d'une de ses sociétés muy Atlas bi ngeen ko doon laaj fii ci seen plateau que dafa signé benn protocole d'accord ak ñi nga xam ne tey ñoom ñooy la famille euh, ñi ñu waroon exproprier alors bi ñu exploité protocole d'accord bi ñu dem ba ci biir gis que ni am na benn clause sax buy wax ay honoraires comme quoi que ni si sa société bu demee ba def recouvrement am ay cré am xaalis boo xam ne jot na ko recouvrer dina ci am lu toll ci 12 pour cent mu toll ci 11 milliards. mais loolu mënuñu mënuñu ko woon comprendre en fait en quelque sorte. mënuñu ko woon comprendre parce que ñun daf ñuy pousser ñu posé wu benn interrogation tey bu fekkente ni Ousmane Sonko dafa waroon am douze onze milliards ci quatre-vingt-quatorze milliards yi est-ce que tey Ousmane Sonko bu jotoon li nga xam ne tey mooy onze milliards yi est-ce que dina continuer di dénoncer wala boog est-ce que dina mener le combat c'est une interrogation. une interpellation. parce que li tax ñu def interpellation boobu parce que bëgguñu confondre l' intérêt général ak l' intérêt des ak un intérêt particulier mhm. parce que aussi ñun on est de la société civile nous n'allons jamais accepter à ce que ñuy mën a ay euh, règlement de compte wala ay combat yoo xam ni ça va être sur le dos du peuple ñu génn ñu interpeller ko publiquement parce que mënuñu ko porter plainte mënuñu def dara te li ñu dégg la rek ñun ko Ousmane Sonko mais génnal nga leeral askan bi nga xam ne yow da nga ñëwoon ci ñoom ne leen dafa am un détournement de 94 milliards mais génnal yow nga leeral askan bi nan nga def ba mbir mi nga dugg ci waroon ci am lu toll ci 11 milliards. lan ngeen ci jële beneen bi mooy beneen interpellation bi xam nga euh, et là aussi je parle sous le sous le de peut-être après mun nañ ci indi ay appréciation xam nga la loi de de de 1976. bu régir euh, l'expropriation pour cause d'utilité publique je pense que ci article 30 bi am na benn disposition daal ci loi boobu buy expliquer ne en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique acte intermédiaire dañ koy aaye c'est ce que dit la loi les actes d'intermédiaire dañ koy en fait c'est interdit parce que état day bëgg à chaque fois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique moom muy traiter directement ak ñi nga xam ne tey ñoom ñooy les héritiers maintenant est-ce que Ousmane Sonko lui il a posé des actes d'intermédiaire par le biais de cette société bi nga xam ne moo si woon protocole bu war a def recouvrement bi yooyu c'est des interrogations tout à fait légitimes parce que mënuñu nangu aussi ci état de droit que ngay woote vertu ci état de droit ngay dénoncer yenn gestion yi nga xam ne da nga jàpp ni c'est des gestions yi nga xam ni c'est loin d'être sobre alors que yow nga bëgg a aspirer ne da nga a jiite réew mi donc man dama jàpp que ni y a minimum boo xam ni comportement boobu nga war a am donc interrogation yi moom Cheikh muy taw muy naaj ñu wax ñu si lépp lu ñu ci mënta wax on va les assumer et puis je pense que nii même la société civile dafa war a am genre posture boobu xam nga c'est bien beau état parfois bu defee ay actes nga génn nga dénoncer mais quelqu'un qui est dans l'opposition également s'il fait des actes yoo xam ne da jàpp que ni ce ne sont pas des actes catholiques mais da ngay génn nga recadrer ko parce que c'est ça le rôle de la société civile il faut être à équidistant société civile boo demee ba ñu lay euh, ba ñu lay jaawale ba ñu lay identifier dans l'opposition jàppal ni vous avez raté votre mission beneen mbir mi ma ci bëgg a dollu ci ramasse ret mhm. man peut-être commission parlementaire bi commission d'enquête parlementaire bi xëy na ñu bëri dinaa ci waroo ak ñoom gis-gis lu tax parce que man dama jàpp ni commission boobu man dama koy saluer xam lu tax may saluer la mise en place de cette commission. Hmm. parce que aussi Cheikh bu ñu fàttalee ni le règlement intérieur de l'Assemblée nationale c'est une loi organique xëy na boo nee règlement intérieur ni da ngay jàpp que ni lu lu lu banal la mais c'est une loi organique donc ñoom ñoo organiser ne on va mettre sur place des commissions d'enquête parlementaire pour que tey bu dee parce que mais bu dee justice yënguwul. léegi ñun dañuy toog rek affaire mbirum 94 milliards yooyu ñu bàyyi ko noonu. mais au moins xaaral ma terminer foofu c'est important parce que au moins tey. Mhm. ak lu ñu mënti wax que mu nekk majorité mécanique parce que aussi majorité mécanique bi a toujours été comme ça tous les régimes qui se sont succédés majorité mécanique moom fu mu sa nekk. man Doudou Wade Doudou Wade ma wax nee ma daal en tout cas. législatif ne prendra jamais le risque. de contrer l'exécutif au hmm. hmm. fii personne n'est intouchable. te on n'accuse personne mais nit aussi dañu lay interpeller tey bu dee la justice yënguwul mais assemblée nationale bu defee jéego man keroog bi ñu tegee commission parlementaire bi interview yi ma def yëpp dam ni leen à défaut d'avoir une instruction judiciaire à défaut d'avoir un procureur qui s'est euh, qui s'est autosaisi mais si on a une commission d'enquête parlementaire boo xam ne jug na nee na pour leeral mbir mi mais ça on apprécie. maintenant mais, mais, maintenant mais aussi boo xoolee Babacar aussi mais dañ ne quand même cette commission là est-ce que waroon na yem rek sur l'affaire des 94 milliards. non maa ngi ñëw parce que Babacar l'a dit depuis lors. non j'arrive il s'en est suivi beaucoup de dénonciations des scandales am na xew na fi. yaa ngi suivre n'est-ce pas te gis depuis lors déggu dégguñu si benn coono. xam nga yaa ngi suivre les activités du forum. waaw Babacar je parle aussi ce contrôle. ñun dans l'affaire Karim Khalifa ñun li ñu saisir procureur sax amaana amul benn ONG fii tey amul benn scandale bu fi am fii te ñun saisiruñ procureur ne ko def ci enquête amul sa n'existe pas pour man autant ni ñu defee enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire ci mbirum 94 milliards yi mun noonu lañ ko waroon defee ci yeneen yi maintenant nag li may wax rek mooy. Hmm. comme tey assemblée nationale def na ko on apprécie maintenant assemblée nationale également du tribunal la loolu aussi il faut que ñun ñu xam ko nañu nekk ci système boo xam ni dañu opter li ñuy wax la séparation des pouvoirs. nous avons un pouvoir judiciaire un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif moom aussi jàpp na ni waroon na ci def liggéey amaan na bu ko deful woon xëy na mbirum 94 milliards yi kon tey kenn du ci wax maintenant def na ko ba pare on apprécie xam nga nag lan la ñuy xaar maintenant. mooy lan plénière bi lu fa mënti tukkee. Hmm. que mbir mi nag Cheikh mu teere ji justice ah justice rek tey moo ñu mën a édifier parce que ju non dañu nekk ci état de droit dama gëm les institutions te foofu nag foofu aussi la ñuy xaar ki nga xam ne tey. moom mooy Mamour Diallo. parce que aussi xaaral ma wax la bu ñu nekkee ci état de droit justice boo daanee fa laa lay waaw maa ngi ñëw bu ñu nekkee tey balaa maa dem ci sa waay bu ñu bu nekkee bu ñu nekkee waaw non li fi nekk rek laay wax waaw li fi nekk rek laay wax man damay analyser ci ay principe am na yenn débat yoo xam ne je peux pas me permettre muy dugg ci biir ci ay principe rek laay dox te ci loolu euh, jàpp naa ni ba keroog ñiy bàyyi suñu mission de défenseur des droits droits de l'homme on ne fait que les principes maintenant Mamour Diallo moom aussi bu dee yow danga jàpp ni dañ la diffamer parce que dans un état de droit am na loo xam ne du ma ko accepter Cheikh mooy ay accusation gratuite xëy suba rek ne Cheikh da nga def lii mooy ternir sa honorabilité mooy ternir sa image saa pour rien au monde je vais pas l'accepter dans un état de droit maintenant si Mamour Diallo se sent diffamé bu jàppee que ni li Ousmane Sonko di wax amul du dëgg mais moom il a intérêt mu dem porter plainte maintenant biñ ko ci interpellé ñun ñu wax li mu wax aussi xel mun na ko nangu xam nga nag en matière de défense et là également je parle sous le contrôle de maître chaque personne est libre d'organiser librement sa défense chaque personne nit ki yaay xool ni mu la neexee ni mu la soobee nga organiser sa défense moom bu jàppee ni dafay bàyyi ba plénière bi jeex mu dépo mu def euh, déposer plainte am ba tey baax na bu fekkee ne moom dafa jàppoon il fallait lekk aussi ñu expliquer askan bi mbir bi na la demee ba pare muy doore porter plainte loolu aussi lu baax la mais li am solo mooy moom aussi il faut il faudrait que mu dem porter plainte pour que au moins ñu xam fan la Babacar balaa maa dem ci maître juste benn laaj laa la bëgg laa xam nga dégg nga ko ci table bi parce que on a l'impression même en introduction wax naa ko nee nañu sax c'est un dossier quand même plus ou moins politique mm. gars yi wax politique et puis nee nañ sax justice dañ ko xaw a politiser mais est-ce que aussi les avocats n'ont pas une part de responsabilité dans cette dénonciation dont les gens font ne aujourd'hui le secteur de la justice a été politisé ni loolu moo tax peut-être c'est l'une des raisons bu poussé démb la bâtonnier non maître ba ngay wax maître déglu ma maître j' étais écouté religieusement cest à il faut avoir du respect. non non da ngay da ngay respect da ngay am cër. booy waxtaan ak nit da ngay am respect wax nga fi loo wax li nga wax yëpp dañu la déglu c'est-à-dire quand les gens parlent. domaine bi ngay wax gën maître. maître je suis même si même bu fekkee ne ni même bu fekkee ne nekk moo praticien aussi. je suis je suis un juriste. Babacar ki nga jàngee laa jàngee. donc waaw amuñu boobu quoi. et puis il faut avoir du respect. booy wax ñi ni di la déglu. yow aussi da ngay am le respect pour man. am na yenn vertu yoo xam ne boo koy prôné dangay am respect mun a déglu ñun ñi bi ngay wax seen daggu la. d'accord nit kii wax na nga daggu ko may wax nga dagg il faut avoir du respect. voilà mm-hmm. maintenant. Euh, fàtte naa sax li ma doon wax. non moom mooy euh, si bi maanaam est-ce que aujourd'hui les avocats n'ont que. Euh, ma jàpp ni peut peut-être laa wax de c'est l'une des raisons yoo xam ne tey moom moo poussé ki nga xam ne tey moom mooy le euh, bâtonnier mu génn peut-être interdire ko parce que je me souviens quand Maître El Hadj bi mu defee euh, point de presse am ci auto automatiquement ci man loolu moom sama nopp da dama ko liir mu génn dénoncer euh, attitude bi nga xam tey Maître El Hadj Diouf daf ko am mu ni gars yi da su ma sañoon bu ñu nañu dem ci baar bi di plaider moo gën ñu koy def dans les médias peut-être moom xëy na ci dynamique boobu la nekk moo tax mu interdire ko mais man tey bu ma doon laaj sama avis man. je leur dama ko doon wax ne ko képp ku bëgg def point de presse nañ la bàyyi nga def point de presse. point de presse bi ñu interdit dem man bu ñu la laajoon sama avis. je suis pas du tout d' accord xam nga lu tax. dama jàpp ne dañu nekk ci état boo xam ni il faudrait que les gens communiquent. tey bu ñu amee justice boo xam ni pour que procureur génn mun a communiquer mun euh, euh, euh, joxe yenn information ci yenn dossiers yi li liñ koy gis bariwul donc bu ñu amee ay yoo xam ni. peut-être ay dossiers yoo xam ne dafa intéressé li nga xam tey moom mooy askan bi mais à partir de bu ñu ko bëggee def man je me dis que ni mën nañ ko. bien sûr jërëjëf merci merci merci euh, Babacar maître uh ah, -huh, vous euh, euh, hmm. man des fois ba ma déggee ñii di wax ci riisu kap parce que damay njëkkee d'abord ci Babacar moom nee na il représente la société civile. damaa déglu waxam. mais ay interrogation rek lay def quoi interrogation mais fii tout le monde est libre de se poser des questions dañu la laaj sa analyse ak sa position y a que des interrogations y a que des interrogations et am na loo njëkk a posé sa interrogation continué wu yow yaa njëkk a wax ni Ousmane Sonko moo def une dénonciation yéen ngeen taxaw jàngat ko interrogé wu ci ma dolli la ci ne du devant le procureur kese la Ousmane Sonko dem def dénonciation auparavant def na dénonciation à l'inspection générale d'État def na dénonciation à au niveau de l'OFNAC pourtant dëgguma fenn foo interroger ne pourquoi nag daf ñu seen liggéey pourquoi inspection générale d'État daf ñu seen liggéey ma dooleel la ci ne la waa CENTIF sax commencé woon nañ ci poser ay acte am na kilifa gu leen woo ñu arrêté liggéey bi kooku maa ko wax et je l'assume mais ñu continuer boo nee dañuy interroger wu parce que dem nañ jàngat ma nangul la ka mais boo demee dem jàngat am loo gis loolu joxu la nga am position mais da nga interroger waat mais sa première interrogation boobu xanaa da ngay xaar mu am réponse bu pare parce que olof dañuy bor du am rak boo interroger wu ci benn question bala ngay dem di interroger waat ci benn question essayer de trouver une réponse à cette première interrogation loolu mooy logique mais non Ousmane Sonko wax na lii am na keneen ku wax lii noo xaaral ma bàyyi li mu doon wax yooyu yëpp léegi ki li koy wax ci loolu la ñuy interroger ba tey nga def que sa ses choux gras maanaam sa matière euh, quotidienne. mais laaj yi mu laaj am na solo tamit. waaw non waxuñu est-ce que loi bi may na may na ko mu nekk euh, interférence. inter diggante bi sa ah. capacité intermédiaire c'est le mot que je cherchais. poser des questions ñun ko bul laaj. Hmm. waxuñu ko sax ni ko sa xel bu sa njort bu mu ñaaw mais mais yow sa njort ñaaw na fenn bala ngaa tëdd lijjanti leneen. au moins amal ay éclaircissement si li njort njëkk a ñaaw parce que njort bi fi mu njëkk a ñaaw looloo andi lii yëpp tey jii Ousmane Sonko tey jii mu dénoncé wul woon devant le procureur de la République au niveau de l' inspection générale d' état au niveau de l'OFNAC peut-être que débat du egsi du fii mais ba ñëwee ba si biir sax dafa teg dénonciation yi fële ñëw nag porter plainte sànq dégg naa sama visa bi ne ma amul droit porter plainte amul droit pour dénoncer mais je me pose des questions peut da ngaa xamul ce que c'est la dénonciation li nga un plaignant une personne même qui porte plainte dénonce dénonce des faits dont elle est victime loolu dénonciation la plainte mooy le fait que nga ñëw di suite vous vous plaignez de quelque chose da ngay plainte am lu la looy naxarlu c'est pas affaire de constitution de partie civile loolu du du policier ñoo koy biy def enquête moo koy apprécier du même juge d'instruction bi nga xam ne moo mooy def enquête ou investigation instruction bi mooy apprécier de la recevabilité tey jii dañuy jéem a di wax ne débat bi foofu la ñu jéem a est-ce que Ousmane Sonko am na qualité pour se constituer partie civile des faits de des présumés faits de détournement de deniers publics loolu ça s'apprécie devant le juge la la de jugement c'est que kii atte mooy dem ba sa biir ma fàttali rek fan yi passé ci procès Khalifa Sall n'est-ce pas la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de la mais kañ lañ ko vider au moment de vider la décision sur le fond c'est-à-dire après avoir déclaré les prévenus coupables si lañ doog a wax sur constitution de partie civile recevable ou irrecevable si lañ ci doog a wax mais dama ni damay tontu kii rek dama ni sànq dafa wax lu am solo mu ni euh, ànd naag Senghor ànd naag Abdou Diouf ànd naag Ablaye Wade ànd nga ak Macky Sall bravo ànd nga ak ñooñu ñëpp peut-être tout politique yi fi am yëpp fekk waaw da ni ànd naa yaa ko wax léegi. waaw peut-être nangul naa léegi fekke nga. continue continue fekke na la. waaw yow dama lay laaj yow new. <laughs> xëy na wolof bee leerul comme nee nga. <laughs> fekke na la bëgg a xëy na. assemblée nationale day def liggéeyam comme yow yaa ànd ak Macky tey ba sol di insigne am. parce que tu as un <laughs> parce que da nga assumer sa appartenance partisane. yaa ànd ak Macky Sall. fan nga nekkoon ba ñu utiliser assemblée nationale en contre Macky Sall fan nga nekkoon. ne me dis pas que tey ce qui était valable ne l'est plus aujourd'hui l'Assemblée nationale c'est pas une première fois qu'on l'utilise pour régler des comptes politiques dañu waxante dëgg Djiboka du Sonko feu Djiboka du Sonko yàlla ko yàlla yërëm Moustapha Niasse du Sonko parce que ñaar ñu ma leen limal mosoo gis ñu mobiliser l'Assemblée nationale pour combattre leen politiquement musta am si benn yoon lañ ko mos gis mooy la la la la la jurisprudence Macky Sall <laughs> fi mu mujjee xam ngeen ko. Mamadou Dia qu'est-ce qu'il a fait non non bàyyi ko mu bàyyi ko mu yëgal il faut pas faire comme lui nag sànq yaa ngi ko doon reproché bàyyi ko mu yëgal bàyyi ko mu yëgal peut-être bañ koy wax man juddu ma woon mais dama la wax man li ma fekkee man aywa maître yàggal li ma fekkee mooy di ko seede comme yow ma fekk nga gaal yëpp am na nga ci bool yëpp mais garaaw diñ ko assumé yow fekk nga ndab yëpp lekk nga ci ndab yëpp lekk nga ak Senghor lekk nga ak bravo laa lay wax yàlla yàlla nga lekk ak ñeneen ak ñeneen mais dama ni assemblée nationale à part Macky Sall moom lañ fi utiliser waat contre Sonko te je j'assume ce que je dis. vous êtes sànq Babacar nee na. vous êtes affolé. on applaudit Sonko du ragal. gis nga koy af Sonko xam ngeen du ragal te il est prêt au combat. les prochains jours nous édifierons sur notre comportement mais dama la xam ne affaire Babacar dafa laajte léegi ne quand il a entendu la mise sur sur pied d'une commission d'enquête parlementaire il a applaudi il a apprécié. Mhm. ma koy fàttali ne ko. avant même la mise sur pied de cette commission d'enquête parlementaire la justice a été officiellement saisie par une personne wax naa léegi na la c'est pas au procureur ni au juge d'instruction d'apprécier de la recevabilité de la caution de partie civile ou non de Ousmane Sonko loolu juge la mais nee naa la xanaa xamoo am na benn je ne sais plus si c'est un règlement UEMOA ou une directive ou une recommandation boo xamante ni les hauts fonctionnaires yi nga xam ne dañuy nekk à des niveaux de responsabilité yu leen permettre ñuy gis ñuy fekk ñuy jël ay décisions wala ñuy gis ay mbir yoo xam war nañ ko mën a dénoncer. Mhm. ñoom ils ont le devoir moral de dénoncer des faits de euh, de de de détournement de deniers publics ou de malgouvernance sous peine même d'être poursuivis demain comme des complices. loolu si illégalement légiféré na ci. Mhm. xam nga Ousmane Sonko sax avant muy wax ay ba mu nekk inspecteur des impôts commencé di yenn malversation yi ak yenn manque de transparence yu am. mais man li ma jaaxal aussi Babacar am na lu am solo lu mu wax. ci question yi mu soulevé. ak pour question d' intermédiaire ak xaalis bi nga xamante Ousmane Sonko na ko ci am 11 milliards. loolu non non bien nga ñëw ci parce que. askan bi ñu ngi toog di déglu bëgg nañu xam lu xew. loolu am na solo ay ah. askan yoo xam ne ki fi soulevé fii. xam nga sànq kii daf ni mon ami dani wax ci mbirum mbirum mbirum intermédiation yooyu changement de cap par rapport à la stratégie mmh. à la position du parti Pastef ou de politique de Ousmane Sonko. Mmh. de Pastef may wax di ko rappeler ne ko. Hmm. Ousmane Sonko dynamique bi mu nekkoon si la musa nekk boo xoolee dans un passé très récent yéen a ngi ko hmm. le scandale sur l'affaire de la Falémé kan moo ko génne c'est lui le scandale sur l'affaire de la Falémé c'est lui. et l'avenir lui a donné raison d'ailleurs ñoom seen biir ñi nga xam ne les tenants du pouvoir commencé nañ di tamante seen biir. ne Ousmane Sonko bu fi nekkul woon xanaa kon doo leen ko wax te son Sonko indi na avec des preuves à l'appui indi teg ne leen y un scandale par la suite dépêché nañ le directeur de l'APIX mu génnee naan non non non Ousmane Sonko li muy wax nii c'est dépassé léegi ce n'est plus à jour kon mu ngi reconnaître ne Ousmane Sonko li mu wax ci protocole ci mot bi même moo même protocole d'accord bi scandale la woon te ay engagement yu état jëloon la envers une société au détriment du peuple sénégalais ma ñëw ci Atlas Ousmane Sonko intermédiation. Hmm. xam nga loolu. fàtte xaju fi Ousmane Sonko fan yee si ginnaaw avant les élections am na benn audio bu pouvoir bi génnoon yéen a ngi koy fàttaliku ñu ni Ousmane Sonko dafa toogoon ak la famille Ndiagandoo yi si biir audio d'ailleurs ñoom ñoo ko génne ah. waa pouvoir ñoo génne pour tenter de discréditer l'image ou de décrédibiliser le discours de Sonko mais malheureusement. c'est tombé à l'eau pourquoi booy déglu audio bi si di nga gis ni Ousmane Sonko plus on avance plus muy gën a set parce que lan lay wax ci biir audio bi te loolu lañ jël am nañ sax ba kenn kuñ jël ne moo leen di défendre Mamour Diallo euh, bind ne Ousmane Sonko toogoon na ci réunion Ousmane Sonko moo ñëw publiquement mu toog ne j'avais reçu effectivement les héritiers Ndoye ba ñëwee ñu waxtaan ak moom ci wàllu titre foncier parce que ñoom ba ñëwee di waxtaan ak moom dañ ko gis nañ ni yow da si posé dafa am luñ ci xam sax bu dul woon ak yow duñ ko ci xam ñu bëggoon la ñu confier le dossier bi nga continuer ko Ousmane Sonko ne leen waaw naam loi des impôts et nekkatuma fonctionnaire expert fiscal la benn société logé nañ ma fa mu leen naam yoon terew loi terew ma ma jël seen dossier mais man sama moral sama éthique moo ma mayu ma jël ko la pourquoi mun leen man nangu ngeen ni man dama si posé ay acte d'investigation maanaam mbir mi dafa am fu mu nekkoon bokk naa ci ñi ko génne pour leeral au grand public acte d'investigation yooyu ma ci posé tax na damay gêné wu pour dugg ci dossier bi. coowal commission 11 milliards. waaw amul mu si see jël xol mu si see laaj commission mu ne leen. Hmm. même si par extraordinaire damaa bëggoon war a dugg ci dossier boobu damaa war a dugg ci dossier boobu muy leen bu ñu appliqué barème yi man en tant que en tant que intermédiaire en recouvrement war naa ci am bu ñu appliqué barème taux barème bi nekk en vigueur war naa ci mën a am 12 pour cent mais teewul dafa leen a déconseillé boppam conseillé leen ñu dem seeti keneen ñu dem ñu ni Atlas dafa signé protocole may défier quiconque. d'accord quiconque Dakar rek jaabi may. dama lay bàyyi nga daane waaw may Sénégal gi ñu nekk nii. ak ñu nekk bitim réew te mbir mi intéressé leen ñu génne un document portant la signature de Ousmane Sonko bu muy taxaw ne nangu naa pour liggéey leen pour recevoir ces 12 pour cent amul dañuy jéem a manipuler te et puis il n'est jamais dit dans un protocole que ces 94 milliards la la ñuy recouvrer Ousmane Sonko loolu da kaa mën a gént wala da kaa mën a ñëw taxaw di ko di si di ko prédire c'est faux xamul am ba des. Hmm. gis cette histoire la pour daane ma jox Amady Dia. cette histoire là. xam nga dafa am benn point bu ñu soulevé woon ñu ni qui a peur d'un procès. Ousmane Sonko yaakaar bu nekkoon ragal dina dem di saisir justice te xam ni foofu la ñuy àttee mbir mi foofu la ñuy waxee dëgg ji foofu la ñuy waxee ni lii am na wala li amul bu doon ragal la wala dafa il a peur d'un procès dina dem saisir le procureur de la République tout en sachant que c'est Sall. par le pouvoir en place vu ses comportements vu les actes qu'il a eu à poser d'accord moom bu nekkoon ragal dina gis inspection générale d'État mhm. bi nga xam ne si cabinet président de la République lañ bokk tey ñoom pale lañ nekk mu dem bind correspondance saisir dénoncer bu nekkoon ragal dina dem OFNAC saisir l'OFNAC bind leen officiellement OFNAC sax def na benn jéego parce que déglu na ko mais ba mu ko dégloo ba tey kenn xamatul fu mbir mi toll dina dem saisir bi nga xam ne ci cabinet président de la jërëjëf maître maa ngi ñëwaat ci bien sûr non non c'est que waxtu bi moo waxtu bi moo ñu moo tax foog la nekk. xam nga di nga ñëwaat xam nga forme la nekk. waaw man je suis très heureux mel nii parce que on a la fac ensemble avec lui forme du justiciable la nekk pour man par définition c'est que c'est que le justiciable justiciable mooy kan mooy ki nga xam ni day dem di jooytu devant une institution judiciaire wala muy demander fa service. je pense que yow li nga njëkk a wax te mu am solo trop Sonko ba mu dem ba saisir le procureur de la république c'est un justiciable forum bi fan la waroon a jóg ne défendez ce justiciable défendez cette personne qui est venue se plaindre auprès de la justice défendez cette personne qui est venue dénoncer des faits qui sont préjudiciables au peuple sénégalais. d'accord selon vous selon vous cela fait Amady Dieng d'accord maître jaajëf ñu koy dagg di léegi Amady dinañ ci ñëwaat ci kanam. alors man dafa am benn constat xam naa ne bëgg nga tontu ci li ñu wax yëpp mais dafa am benn constat ba sax sama naataango. Babacar chronométrer le temps que tu leur donnes. non non non y' a pas de souci ne vous en faites pas je vous laisserai le temps nécessaire pour répondre à tout cela. Euh, bokk na si maanaam souvent ñu may invité ay analystes yoo xam ne dañ koy wax fii nee nañu quand même genre politique de jaay doole dafa am wala genre politique de matey de votre leader. parce que gis nañ un peu le cas de Khalifa Sall gis nañ le cas de Karim Wade aujourd'hui nee nañu également vous comptez faire la même chose avec Ousmane Sonko. lan nga indi ay ay réponse ay kii ci accusation yooyu oui euh, monsieur Diaby je pense que moi j'ai pas de réponse à cette question parce que c'est des positions des points de vue et des appréciations moi j'ai mon appréciation personnelle mon parti a son appréciation ma coalition a son appréciation. yow am na diggante moom adversaire politique am loolu amul. un j'ai fait j'ai fait confiance à mes aux institutions de la République et j'ai que tout Sénégalais boo xam ne taxawul pour dëgëral institution Sénégal day affaiblir Sénégal day wàññi doole Sénégal institution yooyu la am moi j'ai fait le tour de l'Afrique lu ñu am fii Sénégal comme institution seen solidité seen xam-xam seen xarañ je peux dire presque dans l'essentiel des pays africains amuñu donc il faut ñu moytu di affaiblir ñi nga xam ne ñooy atte suñu réew atte suñu suñu njaboot atte l'avenir de ce pays là et ce que j'ai constaté lu ma constaté mm-hmm. ku ñëw nekk pouvoir il apprécie la justice quand il est parti il critique la justice c'est-à-dire que bu ñu waxee assemblée nationale l'histoire de l'assemblée nationale et ñu fàtte les différents moments ñu xam ne depuis Senghor jusqu'à présent intervention assemblée nationale moi pour moi c'est pas pour liquider quiconque mais c'est pour réguler ce pays-là peut-être à des moments c'était pas c'était c'était pas c'était c'était ce qui a été posé comme juste, ils se sont trompés. Mais au moins, ils ont posé un acte qui a pu permettre d'appeler Sénégal pour Sénégal avancer. Il faut éviter des situations de blocage et de remise en cause. C'est extrêmement grave dans la marché d'un pays. Donc, yaakaar naa ne je suis parfaitement d'accord avec notre ami en disant que c'est heureux dañu war a sant yàlla di assemblée nationale saisir dossier bi Parce que peut-être les autres institutions avaient des raisons pour ne pas s'en saisir. Et moi, je l'apprécie en double niveau. D'abord, l'intéressé, celui qui a posé la question, c'est un, c'est un, c'est un parlementaire. Mais qui n'a pas daigné nanguwul dem waa assemblée nationale ses collègues dégg ko loolu lu ñu koy taxé ça c'est la première chose la deuxième chose. Mhm. il avait une tribune parce que il a toujours utilisé l'Assemblée nationale comme une tribune pour wax wax xalaatam pour même xuloo xëccoo devant tous les Sénégalais quand on me depuis que Ousmane Sonko nationale affaire yi wàññeekul au contraire daf ko indiwaat fësalaat ko xewloo ak xeex bu am Assemblée nationale bi c'est autour d'Ousmane Sonko qu'on ne fasse pas croire des choses qui n'existent pas parce que Ousmane Sonko croit que ñëw na pour régler tous les problèmes du Sénégal avec une truc de magie que lui il est au centre de tout fu mu war a jaar ça doit cibler ça ça doit faire la tollée voilà la sa philosophie c'est pourquoi j'ai dit que c'est un activiste c'est pas un politique le meilleur politicien c'est celui qui est le plus discret qui sort ses ses ses au moment où il faut le faire mais pourquoi ce tremblement de terre au niveau de l'État parce que Ousmane Sonko bu c'est tout le contraire mm. justement l'État est serein les responsables de l'État sont sereins la coalition est sereine il l'a très bien dit c'est Ousmane Sonko qui est affolé c'est Ousmane Sonko moo ragal moo nekk ci situation moo xam ne elle peut être défensive parce que gis na ne lu mu yëkkati woon mm. dafa dis ci moom moo yegg fu mu bëgg a yegg et il a compris que les Sénégalais sont tellement intelligents et je je donne pour preuve ce que le le forum civil de la justice a fait de de, de je pense c'est ça non. du SUSAP fait mais je pense qu'est-ce qui est plus logique qu'est-ce qui parce que dans ce pays là dañu habitué nit ñi bu fee amee rek su dee tu es dans la société civile ou bien si tu un analyste qui est toujours du côté de l'opposition il faut que tu tapes sur le pouvoir non il y a ñu nga xam ne en un moment dañ analyser lucidement parce que même le fait d'énoncer un détournement de quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quatorze milliards déjà ça c'est un problème c'est un problème d'abord pour quelqu'un qui sait ce que signifie un milliard et pour quelqu'un qui sait les transactions bancaires et financières ni mu jaay dans ce monde là on dit quelqu'un a détourné quatre-vingt-quatorze milliards Sénégal ah lu ñu fi tudd ay milliards bëri na. non non oui ma. boo dajale loolu ëpp na ñaata milliards lañ fi tudd. mais ah. milliards. sur une opération une seule opération. non c'est pas encore prouvé hein. non non c'est ça c'est la dénonciation et l'autre facteur. Hmm. je pense que les gens disent que on veut liquider Sonko. moi je suis de ceux-là qui pensent c'est Sonko qui est en de se liquider. Hmm. pour la simple et bonne raison. Oui, il a eu 15 ou 16 à l'élection présidentielle passée. Mais il y a des gens qui avaient voté pour lui parce qu'ils pensaient qu'il était juste, qu'il était véritablement un patriote, qu'il défendait les intérêts des Sénégalais. Et aujourd'hui, il est dans une pente de chute. Mais qu'est-ce qui vous le fait dire Quels sont les chiffres les, les, les... Non, preuve nga am pour wax loolu. parce que amuñu y a rien du tout. preuve

Sonko a été lamentablement battu il a été battu à tous les niveaux donc Sonko n'était pas. sauf dans le, sud du pays sauf dans le sud du pays il a fait une razzia là-bas. mais vous savez pourquoi. je ne vais pas c'est culturellement et naturellement normal je ne plains pas de ça mais ce qui m'intéresse le pays c'est le Sénégal c'est pas le sud qui donne le pouvoir c'est pas pas Dakar qui donne le pouvoir c'est le Sénégal qui donne le pouvoir. yuux bu xam soxna mu ngi ko yuux vous savez c'est parce que il a compris il a compris que les Sénégalais d'abord ont compris qu'il a dit des contre que les Sénégalais ont compris qu'il faut aller au fond de la chose pour savoir le contenu réel accusation boobu il a compris que l'Assemblée nationale a découvert toute la camolote c'est-à-dire pexe bu mu bu mu doon bu mu doon bu mu doon pexe pour pouvoir était éligible éventuellement et les élections sont passées il a été lamentablement battu maintenant le dossier à la surface c'est le dossier de 84 milliards l'Assemblée nationale a terminé l'Assemblée nationale est en train d'organiser sa plénière mais il s'affole pourquoi il sait qu'il a raison il sait qu'il a les il connaît le compte bancaire il connaît les montants il connaît les circuits bancaires de quoi il a pris la ragal il a dit tout à l'heure Et c'est ça le plus important. Agreed. En tout cas, nous, les gens peuvent y penser ce qu'ils veulent. Mais cette accusation-là, c'est trop facile. dafa yomb nga toog tu incrimines un Sénégalais comme toi qui a, de, a qui assumé de fortes responsabilités qui a une famille qui a un passé et qui doit avoir un avenir nga accuser ko gratuitement et quand on te demande de venir Euh, devant la justice ou bien devant une institution où tu dois témoigner ou bien apporter les preuves des accusations, tu commences à pleurer. Je pense que la vérité. Et c'est ce Sénégal-là, c'était celui de c'était celui de Djiboka, ce sera celui de Sonko. mi du mujj a viré quand même à l'acharnement parce que man su ma la déggee na te tollé la c'est que Monsieur Sénégal-là, hmm. surtout vous les techniciens de la parole, les techniciens d'opinion, arrêtent de faire croire que dans ce pays-là, les Sénégalais d'en bas et les Sénégalais d'en haut. déet déet déet déet déet déet déet et alors que ah si si ah si si pourquoi pourquoi non bul tooñ non non non bul tooñ. ah si nous posons des questions. non vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. mais il faut pas bul tooñ je t'ai dit tout à l'heure que cet événement de Sonko là n'est pas un événement pour moi. waaw ci yow waaw d'accord kooku nangul nañ la ko. dans la mesure où. waaw ce discours là et ce comportement il a depuis combien combien combien d'années on a toujours parlé de ces 94 milliards mais aujourd'hui nous sommes au bout du rouleau où chacun doit assumer ses responsabilités.

est dans l'infantilisme et c'est pas un militant politique c'est pas un acteur politique c'est un comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un activiste et troisièmement la vérité c'est que l'affaiblissement c'est-à-dire lu mu bëggoon aujourd'hui il se rend compte que l'Assemblée nationale est une institution très forte d'accord et gëm ne parce que l'Assemblée nationale c'est un opposant que l'Assemblée nationale va le condamner. L'Assemblée nationale ne condamne personne, mais elle rétablit les faits qu'il a obtenus à partir de l'enquête qui a été faite. Mmh. Et le dossier ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller à la, en justice. Ça, s'il faut le défendre, moi je le défendrai. Mais je dis que la justice a son rythme et son temps. Vous ne pouvez pas forcer la justice. à faire ce qu'elle ne doit pas faire au moment où il ne faut pas le faire. D'accord, d'accord. Mais je continue à penser que les Sénégalais, mmh. ce dossier-là, mmh. il faut le suivre. Je... Et je, je demande, comme tout le monde, à ce que notre frère Mamoudou Diallo, effectivement, porte plainte. À partir du moment où cette dénonciation, elle est à la limite mensongère et truffée de contre-vérité. Nous savons day yàqal Sénégal mais yàqal un citoyen honnête. qui a fait proprement son travail depuis plusieurs années dans la mission. D'accord, je reviens à vous pour le mot de la fin alors Babacar. Babacar am na ñaari laaj yu ma lay laaj. mais bu ci njëkk d'abord euh, est-ce que quand même. Euh, l'arrestation enfin je dirais pas arrestation parce que arrestation amul. Mhm. Euh, yeggaguñu foofu kon mun naa bañ a gum laajagum loolu. Mhm. mais est-ce que Ousmane Sonko fait bien quand même d'être tout le temps au devant de l'actualité. ah Cheikh je crois que cette question-là euh, en tout cas il a Euh, c'est ce qu'il a voulu du point de vue suffrage des des Sénégalais pour quelqu'un boo xam ne benn député rek la amoon en 2017 au plus fort reste deux ans plus tard quand même comme on dit mu am euh, voix je crois que quand même mën nañoo xam ne am na sénégalais yoo xam ne jusqu'à preuve du contraire ah yeneen échéance am na sénégalais yoo xam ne gëm nañ ko ànd nañu ak moom te c'est pas vraiment à négliger ah. mais Cheikh. Mm. man j'ai que peur peur pour pour euh, pour ce qui va se passer. j'ai quand même peur tey sax du ma nekk analyste. da ngay laaj bi ma la bëggul laaj quoi. non je vais être un donneur d'alerte <laughs> Cheikh. sama laaj bi ma la bëggul laaj nga may tontu quoi. non parce que entre nous. waaw li ma dégg ci plateau bi tey damay wax de sérieusement bien sûr man du wax lu ma gëmul. li ma dégg ci plateau bi tey li ma dégg avant Sonko il a raison d'avoir peur man je peux te dire aujourd'hui que ñii si liquider Sonko Sonko la ñu nekk politique politiquement. je ne serai pas surpris bu ñu ko tëjulit ñu empêché ko mu dem élection en 2024 ça je peux le dire à partir d'aujourd'hui après avoir écouté ñi nga xam ne yëpp ñu ngi argumenté te ma njortu ni seen argumentation fi mu jëm mooy assemblée nationale daal di setal Mamour Diallo plénière vendredi Mamour jàlloo à partir de cette caution bi muy am législative dem porter plainte lu ci mën a am ëllëg man ça me rappelle le cas de Khalifa ça on peut le dire aujourd'hui ñii si dynamique gu liquider politiquement Sonko lañ nekk parce que gis nga xalifa Sall. Hmm. en mars le 7 mars précisément 2017. Hmm. dañu koy tëj je me rappelle il y a un ministre de la République. Hmm. bi Macky Sall di dem di dem Fouta. en tout cas dans le nord du pays après quelques jours. mu ne ma mu ne ma ñun de ñun de ñu ngi dem Fouta mais xam naa ne Khalifa Sall moom yaakaar naa ne bu ñuy ñëwaat dina ko fekk jël rëbës. j'étais tellement surpris moment boobu. je pouvais pas concevoir que ni xalifa Sall dañ ko tëj kaso jamais jamais ma ne ko ma ma ne ko vous osez vous osez ça mu ne ma on va le faire te bi avant ñuy ñëw Khalifa Sall daj nañ ko bi ñu ko naree njëkk a mu amoon coow je me rappelle xaw ma lan moo amoon gars yi sursoir ko quelques heures xaw ma quelques jours après après bi ñu ko convoqué le 7 mars dañ ko téye te gis nga dama lay wax hmm. régime bi peut-être pas pour tëj Ousmane Sonko mais on va l'empêcher ce qu'ils aujourd'hui c'est un combat politique boo xam ni moom la ñuy mener à travers l'Assemblée nationale bëgg a jox Mamour Diallo une caution législative pour mu porte plainte mais pourquoi jant procureur euh, kiiwul suivre affaire bi pourquoi ñu bëgg a xaar ba assemblée nationale jox une une caution législative à Mamour Diallo pour muy doog a porter plainte procureur à partir de là pour procureur condamner Sonko pourquoi le procureur depuis que Sonko l'a interpellé deful dara pourquoi kenn waxul kenn waxul kenn waxul ci justice bi kenn waxul ci tribunal à partir des interpellations de Sonko sur les 94 milliards parce que le sénégalais li mu bëgg a xam mooy lan fan la 94 milliards yu jaar bu fekkee Sonko wax na dëgg ñu xam bu fekkee waxul dëgg ñu xam ce qui nous intéresse ñun sénégalais mooy 94 milliards yooyu ndax dëgg la ndax génn na ci keesu sénégalais yi par rapport à autre chose aujourd'hui nag li ñu ko jaarale assemblée nationale en écoutant les positions des uns et des autres depuis quelque temps argumentaire bi may dégg liir ko je crois que fa ñu jëm c'est assez clair maintenant ils vont pousser Mamour Diallo à porter plainte contre Sonko après la plénière de l'Assemblée nationale vendredi te dama lay wax de après il y aura que des conséquences politiques looloo leen soxal maanaam li leen soxal du fan la 94 milliards yooyu jaar pour l'intérêt du Sénégal li leen soxal mooy un challenger politique qui est en train de déranger naka la ñu mën a fexe pour. que politiciens yi jotul tamit jotul tamit ñu waxtaan ak politiciens yi parce que Babacar boo remonté un peu en arrière. boo xoolee ñu jël élection présidentielle bi rek parce que mën nañu presque tout est parti de là. Mmh. Euh, boo xoolee présidentielle bi Macky a été maanaam soutenir ko lu am doole peut-être vers Fatick bu la nee Kaolack vraiment dans le nord du pays. Mmh. Ousmane Sonko a été soutenu quand très fort dans le sud du pays. Mmh. Idrissa Seck a engrangé quand même le Kayor et le Bawol. Mmh. mais est-ce que aussi tey jarul ñun jotul ñu waxtaanee politique parce que aussi euh, li nga xamante ne ñu ngi koy def day gën a diviser aussi le Sénégal te loolu tamit c'est pas bon. non dama lay wax par rapport à ce qui se passe au niveau de la réconciliation xam nga après chaque man damay jàngat rek. waaw di xool fan la jëmee. mais acte yi ñuy posé en tout cas dans le dans le court terme affaire Sonko bi ñuy wax 94. maintenant après on verra lan moo lan moo nëbbu si ginnaaw est-ce que c'est un troisième mandat moo nëbbu si loolu wala leen loolu après on verra loolu mënu ma see wax parce que météo lay doon mais li ma lay wax si 94 maanaam recomposition politique bi am le président Macky Sall après on sera édifié ndax il ne veut pas un troisième te loolu maanaam donneur d'alerte bi ñuy wax ñun donneur d'alerte bi ñuy wax hmm. mooy que ni tous les sénégalais que ça soit ay Y'en ay tout ça gis nga au niveau de l'Afrique parce que c'est pas qu'ici il faut une grande coalition contre les troisième mandats en Afrique te loolu j'interpelle toutes les associations de d'alerte muy Y'en a marre muy ñëpp à partir de maintenant parce que tu sais tout ça soubassement bi après dinañ ko xam est-ce que c'est pas le troisième moo nekk soubassement bi loolu mënuma see prononcer mënuma am crois que pour maintenant présager à ça contre loolu bañ ko écarté mooy que ni ñëpp dañu war a kii en Afrique parce que looloo am Guinée ba nar a yàq Guinée looloo nar a am feneen loolu nar a fenn aujourd'hui il est temps qu'il y une grande coalition en Afrique contre les troisième mandats bu ko xeexee ba mu jeex dootoo gisati benn président boo xam ne bu am deux mandats di créer ay changer politique am pour empêcher leen ñu dem mais li wax nii tey jàpp ko mooy que ni le visée euh, visée bi dans le court terme mooy empêcher à Ousmane Sonko de se présenter en 2024. mais Babacar du ma la nangu bàyyi damay toogaat yow tuuti parce que fi nga nekk am na solo Babacar silence Idrissa Seck. noo ko gisee hmm? silence Idrissa Seck Idrissa Seck dégguñu ko ci coow li dégguñu kenn Sonko rek la ko gis nga moom écrasé nañ ko complètement politique. waaw mais mais xam nga Idrissa Seck du point de vue quand même comportement politique mën nañ ko comprendre fi mu nekk nii nii nii. damay wax de waxuma lii ñëw après par rapport aux échéances parce que dañoo jóge ci élection présidentielle xam nga mën nañu def campagne tout temps entre ñaari élection mën def campagne boo jógee si élection après avoir mobilisé énergie mobilisé argent xam nga fii leader politique yi daanaka sa dafa rek ngay génn yaay joxe yaay financé sa bopp nga génn si loolu mais après da ngay continuer di entretenir ay militants par rapport à des actions politiques mën nañu comprendre loolu mais aujourd'hui noppem bi par rapport à ce qui se passe ça peut être une stratégie politique mais dama ni la bu fekkee moom il veut vraiment demeurer sur la scène politique continuer nekk bi peut-être sax suba nekk président il faut que mu gën a fës si bëtu sénégalais yi loolu nag c' est une stratégie à long terme boo xam ni entre deux échéances sénégalais yi gën koo gis loolu wax naa ko mercredi yu passé sénégalais yi gën koo sentir auprès des sénégalais gis nga sénégalais yi euh, Cheikh bis boo souffrirul bu ñu la yërëmul pour ñu jox la suffrage du maître gis nga victimisation yi fi wax loolu la il faut que ñu yërëmal te Idriss Seck on a l' quand même ah pas pour le dénoncer ou pas que souvent euh, bi lay jaaree bu nit ñi di jaar si bunt bi il a l'habitude de passer par la fenêtre maanaam raccourci yu bëri muy utiliser pour mën a faire face si kii politique toujours veillu échéance lañ koy dégg mu def ay ay échappé daal di delluwaat mais je crois que s'il a des ambitions pour 2024 en tout cas wala pour les législatives à venir c'est dès maintenant qu'on doit l'entendre mu am ay actions solides du point de vue politique pour que ëllëg sénégalais yi gën koo ràññee quoi. jërëjëf Babacar alors Babacar euh, Babacar Ba bu forum du justiciable est-ce que Babacar xam naa dinaa la bàyyi après nga tontu quand même parce que gis naa ne bëgg ngay daal éclaircissement par rapport ak kàddu yi nga xam ne jot nañ ko yëkkati ci la ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko mais Babacar man su dégloo un peu débat bi est-ce que aussi lii am ça ne remet pas en cause quand même l'indépendance de mhm. depuis l'arrivée de Malick Fall. waaw loolu moom question bu am solo la te à chaque fois man damay damay am toujours plaisir Euh, di wax ci question l'indépendance de la justice mais très rapidement rek <laughs> dama bëggoon indi quelques éclaircissements yoo xam ne interpellation yoo xam ne def nañ ma ko. bien sûr bon bi njëkk dama bëggoon interpeller juste euh, le doyen Babacar bon man bi may wax Mamour jàlloo est dans l'obligation de porter plainte visé wu ma ci benn yoon ay liquidation de l'Assemblée nationale. gisewu ma noonu parce que dama jàpp ni. Mhm. encore une fois de plus man j'aime toujours rester dans les mënuma nangu aussi ci état de droit nit di la accuser naan la yaa def lii da nga sàcc da nga détourné yow nga toog jàpp ni kii li may tuumaal dara amu ci nga toog croiser les bras su boobaa sax kon damay jàpp ni yow li ñu lay tuumaal yaa ko def parce que état de droit aussi bu ñu demee bay accepter ay accusations gratuites maanaam moom ci bopp Mamour Diallo jàpp que ni les accusations là c'est des accusations gratuites mu toog croiser les bras deful dara là c'est dangereux moo tax man ma jàpp ni jàpp que ni moom s'il se il doit porte plainte donc man analyse boobu laa ci def mais pas parce que assemblée nationale bu paree plénière am euh, logique bi mooy mu xaar porte plainte pour ñu mën ko mën a mën a liquider Sonko et foofu aussi ci liquidation boobu dama leen ci wax leen rek gis nga Cheikh yow ci ma ko ne tey bis bu ma toogee gis lu yem ni tarfatal ay ni lu yem tarfatal ay ni bën bënu puso ci injustice ñu jël ko bëgg ko teg ci kaw Ousmane Sonko ñun on sera au premier plan loolu moom dama la ko fi wax tey. bis bu ñu toogee gis que ni Ousmane Sonko dañ ko bëgg a liquider loo xam ne teguñu ko ci dara dama de manière injuste jàppal ni xeex boobu dootul doon xeexu kenn suñu combat doon. parce que comme ni ñu ko defee woon ci ñeneen ñi noonu lañ koy defee beneen bi maître da nga laaj léegi ne forum du justiciable fan la nekkoon bi Ousmane Sonko demee saisir ki nga xam te moom mooy procureur. ça seen une c'est une plainte c'est Ousmane Sonko bi mu saisiré procureur c'était au mois d'août aussitôt après parce que cette question ñun daf ñu intéressé mhm. aussitôt après ñu toog deux mois trois mois procureur n'a pas réagi ñun au niveau du au niveau du forum le 5 janvier 2019 ñu relancer procureur par une requête ne ko monsieur le procureur mbirum détournement bi ñuy wax Ousmane Sonko ñëw ci yow dañu bëgg nga leeral ko donc kon Cheikh je pense que nii ñun suñu wareef on l'a fait en tant que justiciable muy defendre ak ak yelleef bu Sonko defee plainte ñu toog amu ci ay jéego ñu dem wax procureur ne ko mbir mi na gaaw na leer donc je pense que ni kon kuy wax rek te yàlla tax war nga nangu ni au moins mbir moomu def nañ ci jéego beneen mbir mi muy ay interpellation yoo xam ne dama ko def jëmale ko ci l'implication de Ousmane Sonko dans cette affaire maître nee na il kii quiconque comme quoi que ni Sonko n'a pas signé de protocole d'accord avec la famille. Mhm. li leer ba leer mooy. yaa waaw. Ah. je peux continuer. Ah oui allez beneen li li ma ci teg mooy ci seen plateau bi lu Ousmane Sonko toog ñu laaj ko su turu société nan la tudd mu ne Atlas maintenant nag nekk ci société mun nga ci nekk ak ñeneen. boo signé keneen mun na signé en tout cas tu es soit tu es actionnaire wala tu es associé mais tu fais partie de la société maintenant c'est cette société là ñun protocole yi ñu gis moom moo signé la société Atlas ak ñi nga xam tey moom mooy la famille des héritiers liñ ci jàngat mooy xel moo mënul nangu Cheikh moo mënul jàpp ci nit koo xam ni dafa am ay vertu yoo xam ne yaa ngi koy prôné nga génn ni lii dafa am détournement de deniers publics présumé comme ba léegi affaire bi leeragul yow ngay accepté par le biais d'une de tes nga ne yaa ngi dugg ci mbir mi loolu moom kenn mënuñu ko tere ba ñu wax lu nekk nag mun nañ ci góobe lu ne lu ñu wax on accepte mais. non maître bàyyi ko mu yëgal parce que temps bi jeex na maître. maître bàyyi ko mu yëgal maître. maître s'il vous plaît maître maître maître maître Tall. c'est-à-dire man ni ngay def. bàyyi ko mu yëgal temps bi jeex na maître. non non xam nga xam nga maître yëgal yëgal maître s'il vous plaît bàyyi ko mu yëgal waay. c'est li leer maître ah non moom laa expliqué maître parce que temps jeex na dañuy tëj. maître encore une fois de plus xam nga maa ngi yaa ngi koy wax maître on se connaît. Babacar yëgal ñun ñëpp nous avons dans les universités. Mm. donc on se connaît quoi donc fii ñëpp ñun ñëpp on est. voilà voilà donc on est intelligent xam nañ donc. on voit que vous êtes de ah, vieux amis c'est bon merci. non on se connaît moom àggali c'est bon moom nii lay def fu ma fekk daf may sàmm ay xel quoi. daf lay tàpp moom il est l'habitude des faits quoi. Ah, ah, maître bàyyi ko waay bàyyi ko mais maître bàyyi ko bàyyi ko non temps bi jeex na bàyyi ko bul non c'est que yaa ngi koy déconcentré maître yaa ngi xoolal temps bi jeex na dama bëgg ñu terminer en beauté temps bi jeex na dama bëgg ñu terminer en maître. non xam naa ne temps bi jeex na dama bëgg ñu terminer en beauté. non xam naa ni non non temps bi jeex na temps bi jeex na tàkk non sinon vous aurez non vous aurez quand même un droit de réponse supplémentaire aux autres temps bi dafa jeex tàkk moo tax temps bi dafa jeex ah, allez-y allez-y non en fait je le comprends parce que fi mu dugg waaw fi mu dugg moo baaxul waaw fi ma nekk moo ko arrangé wul donc c'est un avocat il fait il fait il fait bien son rôle c'est comme ça il essaie de eh, daaneel parce que temps bi jeex damay tëj voilà moom moom en fait en fait moom ci rôle am waaw ce qui est sûr et certain hmm. Sonko moom moo toog ci seen c'est-à-dire Cheikh ay fee la quoi moom moo toog ci seen plateau moom ci boppam mais société am Atlas la tudd mais Atlas boobu. non mais attends la loi Atlas de 76 mètres mais la loi de pour man la loi de 76 interdit les actes d'intermédiaire. en pour cause d'utilité publique. en matière d'expropriation. pour cause pour cause d'utilité publique. pour cause d'utilité publique. pour cause d'utilité li ma lay xam nga ko. non non dama lay beneen bi beneen bi. beneen beneen bi muy beneen bi beneen bi beneen bi beneen bi maître maître maître maître maître maître euh, maître maître maître Tall maître maître s'il vous plaît xoolal maître Abdoulaye maître s'il vous plaît temps bi dafa jeex te xoolal ñu ngi dañuy tëj léegi dañuy tëj. donc mu continuer li am solo. waaw te ma bëgg fa ma bëgg fa daaneel. bàyyi ko mu yëgale li am solo li am solo. mooy pour les sénégalais yi nga toog yi nga xam tey ñoo ngi toog di ñu seetaan. Mhm. il faudrait que mbir mi ñu situer la part des choses ci kenn kenn ku nekk si ñoom maanaam toutes les parties prenantes ñi nga xam ne ñoom ñëpp tey ñoom ñoo séq mbir mi il faudrait que kenn ku nekk si ñoom ñu xam ses parts de responsabilité. d'accord xam nga tey Ousmane Sonko il a saisi le juge d'instruction. parce que jeexal nañu mais na ko juge d'instruction woo. comme ça au moins moom xëy na bu dee preuve yi nu ko joxe fii mënu ko mettre sur la place publique mais amaana bu demee devant le juge d'instruction. dina fa joxe preuve yi. tout à fait jërëjëf Babacar ñu lay gërëm di la sant Babacar. Ba waaw mais nag il m'a il a il a bu baax yow tamit. il a maître Abdoulaye Tall porte bi jeex tàkk. sama réalisateur ci boppam. sama réalisateur dafa jeex na. bëggoon naa ko Babacar Ba Babacar John maa ngi lay gërëm di la sant yow tamit. analyse di gërëm bu baax Amady Dieng mi nga xam ne aussi moom moo fi teew ramp réalisateur dégg nga mu ngi may envoyé bi. dañ ci ñëwaat ce sera pour prochaine fois jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi jàmm ak jàmm